salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi Mbacke Balaye sa ñun waa xidmatul xaadim ci daara Cheikh Mouhamadou Rokhaya du daayira bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem turandooy sëñ Modou Rokhaya yi te ñu sosoon ko ci sa ndigal ñun ñoo ñëw di la siyaare Mbacke e bokk koog nag ñi nga xam ne ay soppee sëñ Modou Rokhaya lanu ndax ñoom dañ bañ yëgee suñu sosu daayira bi lanu ñëw ne liggéeyub sëñ Modou Rokhaya kenn du ko def bàyyi ñu am itam ñeneen ñoo xam ne ay jigéen lanu ñëw ñe ñoom ñoo yaay faali sëñ Modou Rokhaya ñoom it kenn du liggéeyal sëñ Modou Rokhaya bàyyi leen kon loolu lépp mbàkke ak yokkute la te lépp ci sañ ñaan ak sa barke mbàkke yàlla na yàlla yàggal la fi suñ kanam te may la wér ñun nag ñoo dajaloo ne liggéeyub sëñ Modou Rokhaya bi ngay def tawfeex kenn waruñu see jiitu kenn waruñu cee man moo tax kenn ku nekk ne faw nga def saw ñaq ba tax na boo ko seetee enveloppe bii ñu bind sax dañ ko bind ba noppi am ñu daw dabaatal ñu ci yoon wi fii bi ñuy dugg nga jéggal ñu euh, rature yi ci nekk yooyu yëpp loolu loolu moo ko waral ne faaw ngeen ubbi enveloppe bi def ci suñu ñaq ndax liggéeyu taw feex bu sëñ Modou Rokhaya sëñ Cheikh Anta di ko def faaw nga def ci suñu ñaq ñu ne loolu loolu sëñ ñu koo bañ moo waral li ñu joxe lépp boo ko boolee moo nekk un million deux cent trente cinq mille cinq cent ñu xeeb ko loolu nag kenn ku ci nekk la nga joxe ba nga koy joxe danga nga koo xeeb loolu yéene lu ëpp loolu ndax xam ne sëriñ bi ji leen lu ëpp loolu jaral na leen lu ëpp loolu liggéey bi itam ëpp na loolu ndax gis nañ liggéey bi nu mu toll mbàkke ñu ngi lay santaar bu baax nag di la gërëm di la ñaanal di sàkku ci yow it nga ñaanal ñu ba li ñu yéene lépp ci daayira bi ñu man ko jërëjëf mbàkke sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon nag bu tombeek nii. kon nag bu tombeek nii. ma dugg si. ma dugg si. jàmmante gu ma ak moom. jàmmante gu ma moom. te maa ngi soog a agsi ci màggal gi. te maa ngi soog a agsi ci màggal gi. duggaguma fenn itam. duggaguma fenn itam. budul kër gee ak gii. budul kër gee ak gii. muy fa ma jóge muy fa ma jógee. kon bu ma ñëwee fekk fi lenn lu ñu tuddee sëñ Modou Rokhaya. kon bu ma ñëwee fekk fi lenn lu ñu tuddee sëñ Modou Rokhaya. ak sëñ Modou Rokhaya li ma xam ci moom. ak sëriñ Modou Rokhaya li ma xam ci moom. ak li ma dund ak moom. ak li ma dund ak moom. bu ñu dikkaatee fii ci barabam bi bu ñu dikkaatee fii ci barabam bi gisee ko nii. gisee ko nii. du ma mën a def lu dul li ma jëkke rek. du ma mën a def lu dul li ma jëkke rek. te moom lay mujjee. te moom lay mujjee. sant ko bu baax. sant sëriñ Cheikh bu baax. ci taxawaay bi ba lii agsi fii. ci taxawaay bi ba lii fii. ndax daan nañ wax ak sëñ Modou. ndax daan nañ wax ak sëñ Modou kat. te sëñ Modou xamoon na sama diggante ak te sëriñ Modou it xamoon na diggam ak sëriñ Cheikh. kon kon dañ ko ciy sant bu wér. kon dañ ko ci sant bu wér. ndax yaa ko wax ma di la dégg. ndax yaa ko wax ma di la déglu. ya yaa ko fi ngeen jaar ak moom. fi ngeen jaar moom. ba gën a nosu. ba a nosu. kon dañ ko ci sant. kon danañ ko ci sant. am na nu mu doon demee. ndax am na nu mu doon demee. du demee nii du demee nii. yéen ñu wëlbati ko sant leen. nag ñu wëlbati sant leen. Euh, sëñ moo Rokhaya. ndax sëñ Modou Rokhaya. Eh, liggéey na liggéey bu rëy ci yoonu sëñ Touba. liggéey na nag liggéey bu rëy ci yoonu sëñ Touba. taarix mënu ko fàtte. taarix moom mënatut a fàtte sëñ Modou Rokhaya. defe naa ku mu defe naa ne ku mu yar. wala ñu tuddale ko. wala ñu ko. boo ca amee benn jikko boo ca amee benn jikko rek. muy pas-pas ba muy pas-pas doy na doy na. kon na ngeen ci góorgóorluwaat. kon na ngeen ci góorgóorluwaat. ca taxawaat ci taxawaat ci. te xam ne sànniwu leen seenu ñàq. te xam ne sànniwu leen seenu ñaq yàlla gis na ko. yàlla gis na ko. moom mi ngeen koy defalit. moom ngeen koy defalit. gis na ko gis na ko. taalibe yi ñooy doomi xol yi. ndax taalibe yi kat ñooy doomi xol yi. alwaladu wala daani. alwaladu wala daani. xal bi. nee na doomi xol. wa sol bi. ak doomi geño. waladul xal bi. nee na xol. yarisul xaala. nee na mooy donnu mbootum sëriñ bi. waladu sol bi. nee na doomi ndigg nag. wari yarisul maala. mooy donnu alali sëriñ bi. alal alal du dara. bu fekkoon la moom bu fekkee ne doomi dereet la moom mii. mooy doomi xol la. waaye yéen yéenay doomi nag yéenay doomi xol yi. kon na seen xel daal. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. yéen nag. da ngeen a def loo xam ne. dangeen a roy seen turandoo. bu defe naa bu ma nee bàyyi rek. yam ci. yéen ñëpp ku nekk mën na maa wuyu. ku ne mën na maa wuyu. Euh, kon nag li Serigne Touba bëggoon. boole jullit yi. boole doomu aadama yi. loole sëriñ moo yi. di ca liggéey. ñëw di ca liggéey. di ba boole addiyee Daaru Salaam. ba di benn bis. ñu def ko ci genn gaal. dem jox ko ki fi nekkal Serigne Touba. ba yéen bu ngeen fexee ba boole turandoo sëñ Modou Rokhaya yëpp. nga xam ne bu ma génnee na bàyyi rek. kenn ku nekk jàpp ne yow laay woo. kon kay yéen am ngeen ndam ba noppi. sëriñ Modou Rokhaya. ba mu jàngee ba noppi. sëriñ Modou Mamoun. sëriñ Modou Mamoun. sëriñ Modou Moustapha mi mu ko jébbaloon. mu ko jébbaloon. daf koo dugal ci daara ji muy laxasaayu ba mu laxasaayoo ba mu am ngërëm sëñ moodu mu safaa delloosi ko fii bi mu ko fi delloosee mu ne sëñ Modou Mamoun wàcc nga de ki ma joxoon di sëñ Modou mii wàcc na yéen kat waaye yéen ñaar du ngeen wàcc kat may des te man wàccu ma faaw ma wàcc kon nag roq Rokhaya gi nii ma jëmbat ko Daaru Salaam sama njëmbata nag ku suuxat dana bi ku suuxatut dana bi kon suuxat rek moo wóor boo xasee tudd Modou Rokhaya na la wóor ne ñiy dellu ginnaaw yow moom dootoo ci bopp pëstef bii ngeen am yéen moom ñuy dellu ginnaaw dootu leen ci bokk waaye yéen ñii ku ne xam na ne du ngeen taxaw di yaacaaral di seetaan kenn di defar bâtiment sëñ Modou Rokhaya ba te bokku leen ci menn Modou Rokhaya mu yaafuus amut rawatina nag ci liggéeyu Serigne Touba liggéey boo xam ne ci Serigne Touba la jëm menn moo di roqee ak foo ko fekk du dem ku dem ku nangu ku dem bàyyi ko yéen nag seen daayira bi am naa ci yaakaar joo xam ne daanaka nag ndax alaaji Moodu Roqee ju mi ngeen jiital am na pësteef te yàgg na ak sëñ Moodu lool ndax man maa wax ne ci ñin njëkk tudd sëñ Moodu fii ci penc mi la ci la bokk mu am jom lool léegi nag boo xamee ne kenn ci nanguwut sa morom boo xamee ne kenn ci nanguwut sa raw la kon kay sëñ bi nañ fexe ba liggéeyub sëñ Tuubaa bu jóg loolu moom sëñ Modou Rokhaya fàggul nañu ko sëñ Modou Mamoun fàggul nañu ko Mamoun Cheikh Anta fàggul nañu ko benn liggéey bu jëm ci sëñ Tuubaa ba fi maam Cheikh Anta nekkee moom donga ko daan def bi mu liggéeyee ba wàcc sëñ Modou Mamoun moo ciy man ak njaboot gi fi ne ginnaaw sëñ Modou Mamoun ci la sëñ Modou Roqee taxawal ndajaleem àddiya mi waaye bu dajee moo ciy ëppale ginnaaw sëñ Modou Roqee yéen a ciy ëppale yéen daal yéen a ciy daan waxtu ne rek kon nag nañ ko fas yéenee doxe noonu rek suñ kanam daal bu fa kenn nekkati suñ digganteek sëñ Modou Rokhaya bu fi kenn suñ digganteeg sëñ Modou Mamoun bu fi kenn suñ digganteeg sëñ Gaawaan bu fi kenn suñ digganteeg sëñ tubaab bu fi kenn ne sëñ Mountakha moo wane na ko nañ ko ñaanal mu yàgg fi rek ca wér na fi yàgg lool te sëñ sëñ aboo it ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér aboo Mouhamed ñu ñaanal ko mu yàgg fi te ñooñu nga xam ne ñooy suñuy kilifa bu doon doxul suñu diggante ak sëñ gaawaan dara du dox suñ diggante ak la sëñ Touba joxoon maam Seex muy àjjana yi biir ak joj biti teraangay àdduna ak joj alaaxira dañ koy daal di téye te buñ ko téye ñàkkatuñ dara kenn ku ci ne weer woo dugg. danga xam ne. delluwoo ginnaaw delluwoo yokk waaye dootoo dellu ginnaaw. kon na seen xel dal. nee na moom daal xolam sedd na. xolam sedd na guy. ca loolee la sëñ Saliou waxoon rek. am ngeen ci ndam. te yéene woon naa leen ndam li. loolu nag yéen yéen a ngi ci biir jërë ngeen jëf nangu leen ñaan ca bëgg lépp li ngeen li ngeen bëgg lépp fas leen